ma jàppalee ngeen wax ko laaj na ko damay damay damay jéem parce que bëgguma di def lu nit ñi wala damay def te yàlla rek tax am naa ko mën naa ko te naa leen jàppale parce que et que yoon bi ngeen jël mooy yoon bi bi bi gën. ngeen foncé ci te góorgóorlu yàlla baax na. baax na ci yéen baax na. donc nag comme que ñu ngi soog a xamante. et bi may ñëw dama am ay improvis yu bëri yoo xam ni. eh man contrat yi kon yóbbu ko ba léegi. oh. oh, oh, oh tey je m'excuse. Ah, je m'excuse c'est pas ça man liggéey dama bëgg liggéey bu set toi aussi. donc joxante nañu rendez-vous à la banque donc da nga war a yóbbu papier yi. je m'excuse. oui moom bëgg na dee rek dëgg bi war a taxaw. ok jël loolu. waa ji woo na ma sa matin sax mais xam nga rek. ak li nga ne woon ma gunge la pour. d'accord donc euh, dinaa leen jàppale lii bariwul. aywa ah, ku la bari. 300000 la xeeb naa ko ah, trop. xeeb naa ko trop trop trop trop. Ah, yow lii jikkoom la yow. sama doomu ndey. li ma leen di conseillé daal mooy. bëgg naa suñu gisante waatee. mu suñu gisee bi firnde ni yokkute am na. incha allah ngeen gën a góorgóorlu ci seen liggéey. gën a farlu jàppale seen ay waajur ndax amuñu lu ci suñu ay waajur. kon kon kon kon nangu ngeen ni lam toor ko koy mën ak koy jéem bokkul. ko waxee woon noonu ngeen ko defee. nit ku baax la. ku baax la ku baax la mais bi yow tamit vraiment gis naa sa liggéey. Mhm. parce que jeune nga ci ku mbagg nga tàmbalee sama juumul. Ah. tey yàlla dogal nii lépp. incha allah dina am lu lu am doole lu ma la jox. waaw mais nag nga war sa sikkim bi ah booy. watal parce que yii dafa xaw a indi quoi. dañu mel ni waa Boko Haram. <laughs> bu doon ñaan visa États-Unis kenn du ko may. bu doon ñaan visa dañuy yaakaar ni théoriste nga. wàññil nga. dinaa ko retaillé incha allah waaw incha allah retaillé ko. moom <laughs> kii yëpp bii. waaw mhm. bii rafet na euh, bii rafet na mhm. hmm? mhm. Euh, bii kuul. Mm-hmm. c'est bien trois yi baax na. trois yi baax na mais léegi dama bëgg euh, ñu wàññi benn bii jéem a jël deux vestes. waaw comme tu veux. deux vestes parce que je vois attends attends. Mm. donc calculer calculer nga trop. si waaw bii calculer naa ko am xool fii. mais yow Fatima dama xaw a nag bëgg a tuur ndox. xarit bi euh, toilette bi fan nekk. yow daal sa di ko heure boo kontaanee rek. tuur ma butéelu ndox laay def sama sac ah, bi na nga jël waaw. ki ngeen di jënd ñaar bi na pour jigéen si ki na kay macha allah même bii même bii euh, affaire bi kii na trop ajuwaale même bii dafa rafet. ok bu la bii dafa rafet. d'accord. waaw bisimilah. rafet na rafet xoolal bii. multicolore la bii dafa baax si jigéen macha allah bii moom ah bii moom dama lay dama lay ñaan rek nga jël ko ah parce que ki koy jëndal xaw ma ko mel ni dana rafet. même bii ah bii xoolal bii nii ah bii ok ok ok. wuy ma saag bi ngeen tegoon fii waaye jël na ko te dem na. lan saag bi mënul dem ay eh, saag bi du dem saag bi mënul demee noonu kaay gis nga yow sàcc nga. triant nga. Eh, yaa ko defal tey ñoom saag bee dem. saag ba dem na saag bu xaalis bi demee noonu. waaye man wuti ma soxna si. non non non saag bi demee noonu de saag bi day génn. Oh, saag ba dem saag bi du dem. non non defal naa saag bi day génn de. saag ba dem na saag ba day génn. saag bi mënul demee noonu. eh yow ak ñi ay complice ngeen. yow man lan. man maa ngi soog a bëri ñëw toog. ma ne la Seyna Sango dem na Seyna Sango dem na nga nekk fii di wax. du ma wax. kii yow kay noonu de kii sàcc la sac bi fu mu dugg. waaw ma ne nga génne sac bi laa la wax. dugg xam nga def naa ko. ma ne nga génne sac bi dem na man woo naa. ma ne la ñaar ñi fi jóge waate xel la ñoom ñooy wër ci dëkk bi tegaate xel ak man li ma leen bàyyee woon xel mosuma xel waaye nag yow ci nga bokk bàyyeeku ma la maa ngi dem waaye su ma ñëwaatee di nga xam ni ma nag ma ne la nga génne suñu saak. waaye yéen yéen est-ce que ay nit ñi. yow yaa ne gis nga waa ji. bi gis naa waa ji muy ne man loolu ma wax na ko man naa fi bàyyi sama magasin bi dama topp ay ay saak pour rek. boo gisee waa ji doo ñu annoncé. nu munu annoncé naa la ko wax naa la ko waa ji sa saak loolu dem. sëñ naa génnoon ñu dem am na leneen lu wala waaye ma li jëm ci kii ba pare fay. waaw ma ne la nga génne saak bi laa wax ñu ngi dem ñoo ngi ñëw. pare gu ma ci yow. waaye noo nekk fii di annoncé ay saak xanaa ma loolu ma fii nga xamante Sénégal nga xamante même cigarette sax ñu rey la ci alma cent franc aw ma ñu rey la ci fii pot waaye yow man nag ma xaaral damaa dox bay nekk fii daanaka sama mi nga xamante ne sama lii laa am xam-xam na xàmme na nu may keneen ay problème la mënu ma koy tamit nag ah man lii seen problème gi daal di ngeen bàyyi ma liggéey ah. forox dalay dëkkal dafa naan ay duuli prang dalay dëkkal bul ko déglu waa ji dalay dëkkal yow may ko loxo yow may ko loxo yow may ko loxo dafa naan ay duuli prang yow may ko loxo yow may ko loxo yow may ko loxo dafa naan ay beneen kaa